soxna si ay atam mu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom jàpp ñaar fukk ak juróom benn mu ngi doon wuyoo ci turu Khady Seye dañu ko jam ba mu ñàkk bakkanam ñoo ngi ci quartier Bëgg ba nekk ci diggante Daaru Xuddoos ak Madiana moo def lu ni mel dëkkandoom la mu ngi doon wuyoo ci turu Cheikhouna Ndiaye. waaw xew-xew bi yéen bi fi am mooy benn soxna bu ndaw di soxna Fallou Ndiaye di doomi sëriñ Khadim Ndiaye di sama sëriñ moom la fi benn samba booy jam paaka jamte ko ba mu egg rey te ko. ñi waroon na nekk ci kër gi di borom këram nekkul woon ci kër gi génnoon na ab gorom demoon na liggéeyi kenn nekkul ci kër gi. moom moom xale bu góor bi ak ndeyam ak ndaw si rek ñoo fi nekk mu jam euh, mu jam euh, euh, ndaw si barey ko samp xelam moom ndey ji samp xelam daw wàcc ko fi. naa Ndiaye mi nga xam ne moom la njortu ne moo faat ki nga xam ne moo di Khady Seye dafa luye woon ci kër gi moom ak waajuram wu jigéen ak magam moom nag ak ki nga xam ne moom moo di Khady Seye nee ñu jubóowuñ woon. moom naa Ndiaye bi mu ko jamee ay paaka ba mu faatu ci la ko magam daal di tëj daal di woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa police ngir ñu arrêté ko. daw na ko ma euh, mag gi moo def moo def moom moo moo woote police de gën ndax mag gi bi mu amee dafa gaaw tëj ko ci biir avant nit ñi di ko dégg mu woo police ndax nun bi ñi ñi ko ñi ci gën a sës bi ñu yegg si fekk nañ police ñoo ne police lañ ko jëkk a ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi bi ñu ñëwee ci bërëb bi ngir assurer sécurité ak protéger seen dëkk crime bi loole juróon na ñàkk déggoo seen digganteeg askan wi nga xam ne bëggoon nañoo dugg ci kër gi ba mu indi fa ay weccentey xeer ak gaz lacrymogène jëf ji nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñaawlu nañ ko lool. métti na lool gars yu bëri ànduñoo ak seen sago ndaxte dafa metti nga tim nit ray ko kon loolu yaakaar naa ne naqar mooy ñëw si xol yi donc police bi ñu ñëwee fii fekk fi gars yi ñu taxaw si mbedd bi yëpp après ñoom tamit ñu bëgg a def seen liggéey gars yi am na ci ñoo xam ne maanaam ànduñoo ñoo seen sago ñuy xëccoo ak police yi police yi commencé di dóore. bi ñu dóoree gars yi tamit am ñoo xam gis nañ seen bopp di sànni ay commencé sànni xeer bu ko defee kon nga xam ne maanaam mbooloo mi yëpp commencé di sànni xeer mais man li ma rafetlu wul mooy am nañ aw naqar uh-huh. mais nag bi biñ demee ba di ko jël di leen di leen da ngeen arrière di leen dàq uh-huh. am ci ñooñ joon joon lañ leen a dóor uh-huh. biñ gisee ñuy dóor nag la xale yi nag jël seen ñoom it seen i ay xeer sànni leen dóor loolu moom man xam nga gis ngeen ma sax war ngeen ma xool bi may wax ak policiers yi ndax dem naa ba tàggoog sama sago ñàkk kaaraange gi nag bëri na lool ci quartier yu bëri fii ci Touba Mbacké li nga xam ne moo amaat fii ci quartier Bëgg Bamba askan wi ñaawlu nañ ko nun ko jàngate mooy dëkk bi amul sécurité puisque police deful dawaaram police deful dawaaram te kenn koo fi jàpp ku ne nga rey nit léegi boo ko jëlee yóbbu ñu andi la ci jafe-jafe bu agresseur di ko rey la ci sa kër boo ko laaloon police ne lu tax nga di ko def kooku nag ban loi la kon police dèjà mel na ne kon ñoo dooleel wuyu yi. mooy léegi lu amati ci koñ bi danañ taxaw jëflante ko ak ñi ko fi def ba mu jeex takk négatuñu ci kenn. gannaaw boo demee ci yoon ëllëg ki ci biir ñu bàyyi ko muy balaak kooku moom mënatul ko. Xadi sëy mi nga xam ne moom lañ faat da doon sëy amoon na ñaari doom boroom këram nag bi mu agsee ci bërëb bi mënatul woon te boppam ndax naqar. néew bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di sapeur pompier yi ñëw nañu ba jël ko yóbbu ko ci mat la bul hôpital Matlaboul Fawzeyni ñi nga xam ne ñoom ñoo di police ubbi nañu ab l'enquête ngir xam dëgg-dëgg lan moo tax Cheikhouna Ndiaye daal di faat Khady Seye